boutique bi ñu ngi ko formé il y a cela deux ans ñu ngi fii à Koungheul fête la rond-point waaw ñu ngi si yëngu si lépp luy Apple ay sama yeneen gars yi sant Mr Fakir Wara le grand PDG merci jaa ngeen jëf euh, ñu ngi fii ci Kébé ak lañ nekk tey euh, fii ci Richard Toll euh, daanaka ñëpp taamu nañ ko ci téléphone yu baax ñu muy jaayee iPhone qualité nag la yore parce que ndaanaan la moom dafa ñëw jàpp ci coutumière culturelle bi ànd maanaam suñu sponsor yi ànd aussi aussi équipe bu coutumière culturelle ñu ñëw seet si ko tey. ñu ngi ko formé il y a deux ans. ñu ngi fii à Poumon près de la rond-point. waaw ñu ngi si yëngu si lépp luy Apple Apple Apple aussi ñu ngi yëngu si man yeneen matériel électronique yëpp que ça soit téléphone Samsung ordinateur télévision et tout ñu ngi si yeneen domaine yu bëri mais on peut dire iPhone suñu yëpp la quoi c'est ça waaw depuis qu'on aussi ba incha kontaan si ñu ngi si gis seen bopp bu baax a baax macha allah waaw te pare nañ ko jàpp si coupe du maire culturelle bi bu baax a baax incha allah di leen wax yéen ñëpp teew leen c'est ça voilà c'est yi ñu ngi ñëw bu baax a baax waaw incha allah franchement que ça soit incha allah côté bokkal dagane yi gars yi ñu ngi ñëw comme il faut waaw jaasi ñu ngi ñëw jënd si et tout te boobu ba amuñ si benn regret ñu ngi am national bi laajteel station Neptune rond bu gën a mag si gisaatul mooy rond point Khombole soo ñëwee fii koo laaj place Kébé après dina la ko wan wala soit soo wootee si suñu numéro bi 77 888 88 68 di nga am possibilité joindre on est disponible H24 incha allah. primaire culturel bi euh, Kébé Apeur da ciy jàpp euh, ngir jàppale aussi tamit euh, organisateurs yi ñoom aussi tamit am ci visibilité parce que loolu la ñu bëgg dañu bëgg bépp képp ku nekk fii ci Richard Toll li ngay liggéey di ci yëngu ñu tasaare la ko fépp ci àdduna bi ba ñëpp jot sa le 14 lay kon nag mbokk yi naka ñëpp waajal le 14 bii samedi bii ku ñëwul salle des bu Richard Toll. buñ la nettalee bul mel bul dóor kenn bul xeexal kenn ay ci bo on simple on simple 64 et 128 giga disponible disponible na nag sur toutes les couleurs disponible sur tous les